Mamadou Sène Seyni Koli Omar Sidiya Diatta no peace no justice no peace no justice cimetière jeel mbaa hospice Iblis moom taxaw di xaar fu boy ak fu am saxaar jabootu buur ak askanam yab di leen di faar dégloo tuma xibaar télé rajo bizarre ay baayu saaga di werante nax fen wu aji saar karange buñ la dénk nga dellu di ñu ko mbugalee justice di kàcc te sàcc ci nguur gi ndax soxla na yeneen kàngam yuy xaaci di dóorandoo Sénégal na jëm kanam Jolof soxla na yeneen kàngam yuy xaaci di dóorandoo Sénégal na jëm kanam mu ngi naan doomu gaynde kenn du ko jam naan doomu gàtto yore fetal di ko brisé bukki bu sango deru bay la di délise bi lu la demee dina change government ak justice for the money jala tongu ngay matu ni mbër bu ñu asome ni mbër bu ñuy patame di fañ fañi fa waa caaca jublu leen ci xëyu ndaw ñu wàññi bla bla bla kay ne bu xiifee du dégg jaatu daa daa daa ñaa ngay defar xelu ndaw du abracadabra ñoñoom yëpp di daa daa daa ci ay waxu fla fla may yërëm naa la jeelu kee ak Mamour Diallo Farba Ngom wallaay di ngeen dugg mbay 22 milliards du ak foo dugg sa clan jàkkaarloo ak askan wi ak képp koo tudd 45 milliards arme eaux ci loxoy neuf yi wetu police di ñu ko tiire 45 milliards arme eaux ci loxoy neuf yi wetu police gaynde gi maratina mu ngi naan doomu gaynde kenn du ko jam naan rebokato yore fetal di ko bise bu ki bu sango deru bay la xaaru danga doon raay badoole ñu yore seeni wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ger leen màggal leen ndamoo di leen tiitaroo di jégalu ci guddee bi Euh, bëggoon waxtaan ak yéen rek vite fait euh, ci yenn actualité saillant yi nga xam dafa am euh, déjà li ñuy wax rek mooy par rapport ak équipe nationale bi ñu ngi leen di féliciter di leen sant di leen gërëm nii la waroon demee fii la mbir ya waroon yem yem na fa parce que tamit Euh, football moom reenu ñaam bi la rek tey da ngay gagné suba ñu gagné la donc euh, li nga xam ne moom mooy erreur tactique wala technique bu ci mën a am rek après gars yi waxtaan seen biir xam ni am na ay ay couac c'est vrai que mooy li ma gëm rek c'était pas la meilleure équipe quand même j'ai bien regardé la Coupe d'Afrique mais j'ai trouvé kenn ëpp si sa morom doole doole doole yooyu quoi presque équipe yi val ñoom ñëpp a tolloo doole donc euh, bu ñu demee bay éliminer ay Égypte di éliminer lu mel ne ay Cameroun di éliminer ay ay équipe yu mag a mag a mag donc euh, ci ci léegi nag moom football moom euh, gars yi nañ tour quoi gars yi nañ tour kenn doorul kenn ci tour conviction la gëm-gëm la réalisation la boo ci tollee rek def ko boo ko boo ko voilà quoi on trop manqué ay buts euh, bof voilà quoi on n'a pas vraiment exploité l'affaire donc euh, euh, perte nañ perte nañ ñu jàll ci leneen loolu moo am solo donc neexoon na fi tey nii la waroon demee bu ñu jàll ci leneen de toute façon di nekk suñu kanam gis nañ ko. mooy actualité bi politique la parce que Sénégal mi ngi ci benn tournant bu décisif tournant boo xam ne ci la ñuy defaroo ba faw wala ci la ñuy toroxee ba faw euh, bokk na ci comme ni ma leen koy waxee euh, élection yi nga xam ni ñoom ñi ngi def lu ne pour mun ko reculer ñu ngi ci def seen kéemtalaay kàttan muy Macky Sall ak waa PDS réeroowuñ nag Macky Sall chaque jour mi ngi dégganteeg Karim Wade Sall chaque jour que Dieu mi ngi dégganteeg Karim ñi ngi déggante déggante bu baax sax Macky nag comme amul candidat bu dëgër te xam na ni Amadou Ba ku mësa a séqal dóor nga ko te xam na ni ñun waajal nañ ko tamit ci li mu hold up électoral bi mu fas yéenee bëgg a def nand nañ lépp yëg nañ lépp parce que looloo ko gën a jaaxal lan moo tax lu mu bëgg jéem rek nit yëg ko donc mu xam ni fii xanaa rey sénégalais rek mais munul sàcc élection yi élection yoo xam ni sénégalais yi nee nañ décider nañ ko jëli seen carte voté ko sécuriser ko xaar fa ba fajar mooy càppantati donc sécuriser urne yi sécuriser vote yi taxaw kenn du lekk kenn du naan ñu toog teg ci seen bakkan même bu dee dañuy tef teg foofu sax ay mbana ñu def fa ay mbana ñëpp doo toog surveiller affaire yi nga xam ni fu amee kuwaak rek nit yi jóg donc moom xam na ni <laughs> xaw fan lay jaar mais sax ci yi jafe na te moom jeexal na ba pare léegi nag ca loolu nag ma ngay fexe nu mu mun a def ba ñu arrière élection yi te loolu nag en complicité la nee naa leen en compli du du PDS rek en complicité avec Macky parce que Macky Sall euh, arrière élection yi négocier ak Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko accepteel ko ko en attendant ñuy dellu si mu mun a ñu mun a fexe ba Ousmane Sonko bokkaat ci élection yi mais il faut que Ousmane sonk assurer ko ay gardem il faut que Ousmane Sonko assurel ko njabootam protection njabootam ak ñii mu xam ni daf leen dafa ànd ak ñoom ñu def fii ay luubal yu day waa donc moom ci loolu lay wër te xam na ni bu ñu demee élection da koy perte lool nag xam na ko xam na ko ci saayir xam na ko ci baatin yàgg naa leen ko wax donc loolu moo tax ñuy yónni seen chien errant yi ñi naan dañuy préparer l'opinion nationale di wax ay waxu même ay def nañ fi ay kii mais trente cinq pour cent amuñu ko euh, dara defuñu ko fi ñu fi def yëpp jomaay fay moo gañe voilà yiñ fi mus a def yëpp teg ko fii jomaay fay moo gañe <laughs> donc euh, voilà donc euh, nee naa leen nag Macky malheureusement bi mooy deuxième fois boo xam ne yabal na ab doomu aadama pour mu dem négocier ak Ousmane Sonko ñu ngi koy woowee yara malien yara malien ñu naan eh, yara malien bi ñoom xam nañ ko yara yara c'est un malien un jet-setteur moom président yi rek lay liggéeyal xaritu Macky la deux fois Macky Sall yónni na ko ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mu ngi tudd Yara Malien ñu naan ko Yara Malien bi Yara Malien bi Yara donc kooku dem na ñaari yoon gisi ji Ousmane Sonko ba bu mu mujj bu mu demaatee Ousmane Sonko la rejeté catégoriquement ne ko élection rek laa soxla exactement am na ñu ko xam Boubacar Yara la <laughs> Malien merci beaucoup Boubacar Yara gis na ñaari yoon Ousmane Sonko njëkk na ñëw Macky Sall yónni na Boubacar Yara pour mu ñëw wax ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko lànk demaat na fa encore gis ak Ousmane Sonko ne ko Macky Sall yabalati na ma nee na ma nga jàpp ci ñu arrière élection yi mu mun la delloo ci sa àq ak sa yelleef ngeen waxtaan yéen ñaar ba juboo nga assuré ko ay derrière mu libéré la après bu ñu arrière élection yi après nga mën a bokk ci élection yi boo ko gañee au moins li ñu wax nga def ko mi ngi tudd Babacar Yara voilà waaw Boubacar Yara ah dañ koy woy <laughs> man comprendre ma d' accord waaye nag Ousmane Sonko a rejeté catégoriquement waxi Boubacar Yara bi nga xam ni moom la Macky Sall yabal nee na ko Ousmane Sonko nee na ko boo demee nga ne ki yabal amul recul élection amul arrière élection amul dindi élection dañuy def ay élection dañuy def ay élection donc loolu la ko Ousmane ko wax ne ko demal nga ne sa patron ay élection day am amul recul amul arrière amul avant élection day am la vingt cinq février incha allah ku mun sa morom duma man wóolu naa sama mbër ki nga xam ni mooy Jomaay Fay wax na ko ko sax ne ko wóolu naa sama mbër Jomaay Fay loolu la ko ne ko man doyloo naa sama mbër Jomaay Fay da ngeen takk seen mbër ma takk sama mbër nga ngeen ngeen ngemb seen mbër Amadou Pitaba ma ngemb sama sama mbër ki nga xam ni moom mooy jomaay fay nañ bëre loolu la ko wax te moom it bu mu demee rendre na compte Macky Sall xamal ko ni Sonko lank na ba tëdd ci suuf ne ay élection moom day am incha allah allah kulli àll moom ngemb na mbërëm ba noppi donc bu ñu wóoloo ñoom seen mbër nag nañ ñëw wax di nag moom nu ma leen ko waxee woon bëri na loolu waaye nee leen depuis trois semaines Amadou Pita Ba ak ki nga xam ne mooy Macky Sall waxuñu <laughs> waxuñu de nee naa leen Amadou Pita Ba ak Macky Sall ñi ngi moytuwante bu baax a baax a baax te moom loolu laa waxoon ne leen Amadou Pita na wuy ji Macky Sall li muy def nii yëpp coow lii lépp mooy na wuy ji Macky Sall munul nekk ci réew mi di rate ay euh, conseil des ministres conseil des ministres di wër a ko taxawaalu ko tambaambalu ne leen ko mu wuy ji Macky Sall Macky Sall dem na sax Rome waaye na wuyu ji Sall depuis trois semaines ñoom ñaar waxante wuñ téléphone envoyante wuñ message léegi nag moo tax Macky Sall fu nekk nii reculer ay élection négocier ak Ousmane Sonko lay wër waaye Ousmane Sonko nee na ko doyloo naa sama mbër mii di Diomaye Faye te nañ fas yéene wërë ba dem na këng waxuma dem dañ tàlli lu waaye doon jaay mu lamb kaay la ñu jaam jàmmaarloo wax ji loolu kese la loolu la leen wax donc ngeen jàpp ni amul kenn du fi reculer ay élection parce que Macky Sall moo woote woon lii moo woote woon lii bu ñu demee ba dernier virement moo tax ñu naan leen Sonko du nit bu muy artu ak araftu justice bi ñu bugg ñu rey ak force reste à la loi ay bandi de grand chemin ay serela ay wëyu yu wëri naan ay force reste à la loi force reste à la loi loi boo xam ni tey ngeen gis ay magistrats yi day ni ay conseil constitutionnel génn ndeysaan waye di doye di ndax lan Macky Sall la leen toroxal teketuñ dara ndeysaan ay juge conseil constitutionnel <laughs> yi def di porte ci plainte génn naan noon du man de du man de lépp yéen a ko waral ngeen ngeen a juutu summi seen silib yi jox ko Macky Sall mu weer ko muy fóot seen silib di ko weer ngeen def taatu nañ ci kanamu Macky Sall mu leen di fecculoo gincee ca rek ndawal ngeen di tëb di dal à la fin moo leen toroxal waaw bu mu leen di sant ay liggéeyu salte ngeen di atte muy dëgg mu ne moom du ci mu dëgg ci tànkam ngeen atte dëgg mu dëgg ci tànkam Macky Sall dëgg ci tànkam ngeen toog di seetaan mu toroxal ay ay juge ngeen toog di seetaan un bu ci mel ni saaba Sabassy Faye atte dëgg mu toroxal Sabassy Faye di ko yónnee ay ay inspection ngeen toog di seetaan boobu ba léegi Union de magistrats du Sénégal génnuñu bi Macky Sall di toroxal si fay bi Macky Sall di toroxal ki nga xam ne moom mooy le juge euh, euh, euh, kii coon Ousmane Thion yooyu yëpp yéen a ngi toog di xoole mu jàpp leen nag yéen seen biir nag ndax intérêt di leen tooxal yéen conseil constitutionnel ngeen di cëpp cëpp ki bind war war yéen boo leen boo leen doon gor dee ngeen bu yàgg gàcc du leen rey lépp yéen a ko def ay juge yoo xam ne mënuñu tenir debout ay juge juge lâche ay juge corrompu ba ay conseil constitutionnel et c'est vrai vous êtes corrompu vous êtes des corrompus man maa ko wax Sénégal ba Sénégal daj waaye yéen euh, Cheikh Ndiaye le juge Cheikh Ndiaye kan moo fi wax ne Cheikh Ndiaye est un corrompu kan moo ko wax mais moom ku moom xar mi rek mu bàyyi buum bi man kese je suis la seule personne devant 18 millions de sénégalais man rek maa fi génne photom ne kii c'est un corrompu il a reçu un milliard de Farba Ngom Farba Ngom kan moo ko fi wax ku dul man <laughs> moom mu dem porter plainte wa PDS man la war a porter plainte PDS ba léegi waxuñu Cheikh Ndiaye man moo Morgun je la première et la seule personne bu indexé Cheikh Ndiaye le juge Cheikh Ndiaye man kese 18 millions de personne doomu aadama génnu fi génn photo Cheikh Ndiaye ne kii mooy Cheikh Ndiaye c'est un juge c'est un corrompu mi ngi ne conseil constitutionnel loolu man mii la man. donc bu ko laajee mu jóg bay defi plainte nag fii kenn waa PDS sax génn guñ tudd ne Cheikh Ndiaye kenn moo fi tudd tuuru Cheikh Ndiaye devant 18 millions de sénégalais man la man moo Mollah Morgun donc kay plainte bi Mollah Morgun la ci waroon def. kan wax leen keneen ku génn génne ci gémmiñam Cheikh Ndiaye ku dul man <laughs> kan moom ku moom xar bi rek mu sànni buum bi Cheikh man mi maa la tudd man maa la tuddu waa PDS tudd ñu la dañ ne am na ñaari juge corrompu waa PDS tudd ñu la waa APR tudd ñu la waa LDMPT tudd ñu la waa PASTEF tudd ñu man Mollah Morgun maa la tudd maa génn sa photo na ko rang dang fang ci internet bi ne tu es un milliard nga recevoir. waaye yéegi yow kan nga dégg mu tudd sa tur ba ngay daw di defi plainte un juge conseil constitutionnel bu def tur man maa génne sa tur maa affiché sa tur man maa ci def man maa wax un milliard yi nga recevoir waa Cheikh yow lan moo la tiitloo <laughs> ba nga naan ay euh, am na ay ay ay parti politique bu ma tudd xaw ma lan ak lan da daw di porté ji plainte ça kan moo dugg ci waañ bi rek nga ne tuuru ma ñeex mi set ngeen set lan moo tax nga génne di def plainte kan moo dugg ci waañ bi nga <laughs> nga ne tuuru ma mi <laughs> loolu moom doy na waar Cheikh Ndiaye de maa ko fi tudd maa koy affiché man mi <laughs> du APDS du PDS du APR du du du Pastef man maa Mollah Morgun maa génne foto Cheikh Ndiaye ci jour buñ ko corrompu ci guddi ga ci lendemain fajar man maa leen ko defal live tudd seex Ndiaye génne leen photo mu wan leen ko du affiché ko man la a ah, Cheikh doo ma porter <laughs> wala dangaa gëm ni waa ah, waa PDS ñoo ñëw ci man yoo ma yónni wala yabal ma yow laa tudd ak sa grand ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Koulibaly yéen ñaar laa tudd man rek man je suis le seul sénégalais je suis le seul unique sénégalais bu tudd ñaari juge ñaari juge yooyu ñoo après ci lañ siwee Cheikh Ndiaye moom tamit euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Koulibaly après ci la daw moom tamit gaay di ko jéem a dëgëral mais man bu mu waxee nii lu tax ma indexé vous êtes huit sept lu tax ma indexé ñaar yooyu génne leen te ñaar yooyu seen tour après moo mujjee siw ci ba kenn ki dem porter plainte ñeneen ñi naan non Cheikh Tidiane Coulibaly xam nañ ko ku baax la donc euh, lan moo tax ñoom ñaar affaire bu mujjee tourné doon ñoom ñaar te bu may annoncé ñoom ñaar ne ñii ñooy corrompu yi boobu ñëwagul te wax naa leen ki leen corromp ki leen te wax naa ko mooy Amadou Jules Déba moo leen corromp Amadou Diouf Daba moo leen yónni mooy moom mooy mooy le corrompu waaw ah. un milliard la jot maa ko répété <laughs> man waa PDS dañ maa ñimewul sax ba may yónni waa PDS dañ maa ñimewul ba may yónni yow yaa yaa ma ñime nga naan ay waa PDS waa PDS seen juróom-ñaari maam ñimewuñ ma ba may yónni <laughs> sa waay bukki bu yabee gaynde ca doxin bala de man boo ma yabee rek dama dama so sori nekk ci internet bi di wax ni man gars yi ñimewuñ ma de yii nag dama dama dëkk ak yéen ngeen ñu ay famille may wax nii ngeen miin ma <laughs> sa boo leen demee ci autorité yi ne leen Mollah Morgun dañ lay xoolaat de boo demee ci autorité yi di bandi bandi lu fii ko ci ne Mollah Morgun mu lem caayam ba mu ron daw bàyyi la fa kenn yabu ma man kenn yabu ma teg sama téléphone ay PDS di ma woo man mii naan te waxal ma lii waxal laa <laughs> ñun suñu information du soxlawuñ PDS on a bien compris ce qui se passe dans ce pays lépp xam nañ ko Macky Sall moo wóolatul Amadou Ba jël xaalis jox Amadou Ba Amadou Ba jël xaalis boobu dem corrompre ñaari juge yooyu pour ñu éliminer yenn candidats yenn candidats yi du Karim Wade kese de yenn candidats yenn candidats yi dañ leen éliminer parce que ñoom ñoo ko santaane ñoom ñoo retourné dem wax waa PDS ne leen ñaar ñi dañ leen corrompre loolu lépp waa APR la du waa PDS de waa APR ñoo corrompe Macky Sall ci boppam moo yebal Amadou Ba mu corrompe ñaari juge yi Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Bitèye Cheikh Tidiane Koulibaly parce que buggul ay élection parce que dafa dem ba suur ci waa ji xam ne kii du waa ji muy Amadou Pita Ba mu bugg a yàq mbir yi pour dem négocier ak Ousmane Sonko mu xam ne day laaj temps moo retourner jëlaat loolu dem jox ko waa PDS xamal leen ni ñun dañoo corrompre ñoom seen bopp dañoo corrompre juge moo tax waa PDS woote lii pour ñu mën a reculer élection yi. donc noonu la mafia bi demee moo tax nga gis PDS ak APR booloo depuis douze ans musuñu booloo ñu ngi doog a booloo pour mun a dem assemblée nationale <laughs> dajale seen i député donc loolu da ngay xam ni duwaa waa PDS kese waa APR ñu ngi ci biir ñoom ñoo joué lépp sale jeu bi yëpp ñoom la moo tax ñu mujj di maintenir moo tax ci début live bi ma ne leen xam xanaa xamu leen ne Karim wàdd ak Macky Sall ñu ngi déggante matin midi soir matin dañu wonte téléphone midi soir kooku mafia boo xam la ñoom ñëpp ñoo booloo pour xeex Sonko parce que élection yi xam nañ ni bu ñu demee lépp lu ñu def gis nañu Sonko da leen a ñuy jéem a xool nu ñuy négocier Macky Sall ci négociation lay la jóg nii créer ay mbir pour ñu mën a reculer ay élection mu mën a dem négocier ak Ousmane Sonko loolu wax naa bii mooy maintes fois bu ma leen koy wax njëkk nañ wax ak moom. njëkk nañ wax wax ak moom ci boppam pour mu dem wax ak Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko génn dëkk bi Ousmane Sonko lànk ñu ñëwaat xool nu ñu defee seen deal pour mën a reculer élection yi pour mu mën a négocier Ousmane Sonko Ousmane Sonko dugg ci biir Ousmane Sonko lànk donc parce que Ousmane sonk xam na ni moom nee na doy loo na Jomaay Fay mooy mbërëm kon kooku ay mbiram leer na nañ ñoom ñoo nekk ci mafia ñoom ñoo nekk ci linja ñoom ñoo nekk ci lu ñu lëndëmal wala mun a xool nu ñu def ñoom ñoo ci nekk waaye ñoom xam nañ ni bu ñu demee Sonko dina leen dóor ba pan seen kaw billaahi wallaahi wa taala yi lépp mafia PDS APR la ñooy mafia jamono ji ñooy def mafia bi ñi ñu arrêté ñu ci bëri waaye yow conseil constitutionnel bu ñu leen corrompre woon est-ce que dinañ dugg di jël ay clé jàmbur di éliminer que di di sensé <laughs> mais sa waay nañ la waxante dëgg kan moo mun a setal conseil constitutionnel bu conseil constitutionnel bu ñu leen corrompre woon est-ce que dinañ éliminer ay candidats yoo xam ne ñëpp xam ne ñu dañ leen éliminer ci daayu doole mafia lan moo tax ñu dem bër ba ay ay Soham Wardini koo xam yéen ñëpp kenn xamu ko ci ñun ñoo xam waa Kaolack ay clinique ñu xam ko naar libaane ma bokkoon ak ay ay jarbaatam euh, école Pidouze ñuy jàng nga xam ne la kan moo ci xam yéen Soham Wardini kenn xamu ko woon nan la def ba jàll lan moo tax kon ñu jël ay ay candidats yi ngand éliminer leen ku éliminer Sonko dañ dañ leen corrompre Amadou Diouf débat moo corrompre pour buñ buñ bu Sonko dem moo ko corrompre conseil constitutionnel c'est des corrompus personne ne peut les défendre c'est des sales corrompus ils ont été corrompus Amadou Diouf débat corrompre na leen Macky Sall corrompre na leen loolu moo tax niñ ko doon Rose Wardini nii dafa am Soham Wardini Rose Wardini c'est des familles libanais yu yàgg jóge Liban ñëwoon Kaolack ci marché ba newoon ay commerçant seen pap seen parents yi Soham Wardini Rose nii am na seen beneen grand bu doon fubal seen frère ba ñoo ñëpp waa Kaolack lañ am na la famille Wardini yoo xam ñoo bokkoon école Pidouze di jàng ay naar libanais lañ d'origine exactement pour wax leen ne mafia ñoom ñi ngi def seen mafia parce que Macky Sall moom jàppoon na ni même bu ay élection amee da koy luubal day def ay affaire am ak yooyu après midi génn armée bi taxaw nappaatee nangam naa loolu yëpp kaay xamal ni ça passera pas loolu mënul jàll donc moom ci lu mu ne tiit ak jàq moo tax muy jéem a xool nan la mun a defee pour mun a arrière élection yi pour mafia loolu kese la wax naa leen ne leen ki nga xam ne moom la yabal ci Ousmane Sonko dem na fa ñaar yoon Ousmane Sonko rejeté ko mooy Boubacar Yara le Malien Boubacar Yara moo dem na deux fois Cap Manuel caméra wane nañ ko deux fois mu dugg Cap Manuel dem pour gisante Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne élection kese amul leneen woolu ngeen seen mbër ñëw leen mais Macky Sall wóolatul Amadou Ba ça fait trois semaines waxuñu ñoom ñaar trois semaine waxuñu trois semaine gëj ngeen leen gis ñi ànd d nekk ak di kaf trois semaines waxuñu téléphone Amadou baa ngi julde baa ngi wër di daw di dam jam Mbàkke dem fii dugg fee dem fee dem Touba wër kuti kuti kuti daw ba nii kenn gis gisul leen ko ba léegi ak Macky Sall ñoom xam nañ ni nii nii nii embuscade bu garaaw la ñu nekk buñ ñu demee élection dañuy perte loolu lu leer nañ la moo tax ñuy def euh, commission parlementaire bi gaawantu affaire yi taf taf waxoon na eh, eh, eh, eh <laughs> dem leen déglu samay laay bi da ngeen di déglu samay laaj man suite logique laa def man du ma tâtonner gis nga ma la joxe benn information tant que wàcce wuñ information bi di suuf du ma bàyyi man damay suivre damay suivre maanaam du ma du for fi cof fii cof fee cof fee man damay damay ay dossier laa yor damay suivre dama leen waxoon ne leen gars yi boo leen defu ndànk sax lëndi gars yi ñu ngi ba léegi seen affaire assemblée nationale ne leen boo leen defu ndànk même lëndi dinañ dinañ dinañ convoqué ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, euh, ñii ñooy député yi lënd bi lañ leen convoqué <laughs> dimanche ci guddi lañ dugal seen këyit bi ne leen lënd pourtant wax naa leen ko samedi bu may live nee naa leen boo leen deful ndànk sax lënd ñu woote parce que fast track lañ ko bëgg a def pour mën a reculer élection yi. dimanche ci boppam loolu samedi la dimanche bi ci boppam ci guddi gi lañ leen génnal seen feuille ba woo leen démb ñi ngi woon ñi ngi woon fële assemblée nationale. man bu may xeex benn mbir dama koy topp. parce que ñoom tant wàcce wuñ ko du ko wàcce man noonu laa que wàcce ko du ko wàcce chaque jour damay yéen ak nit yi ci seen i préparation lu ñu waajal def Sénégalais yi pour yéen ngeen waajal rek ngeen jóg taxaw waajal seen bopp ne lii du fi am parce que lu leen bett mën leen man nag maa ngi ci seen biir dugg seen biir di suivre di dégg di ñëw di wax te lu ma leen wax ngeen gis ko lu ma leen wax ngeen teg ci bët loolu moom samay fiabilité information kooku werante wu ma ko nit bu ko dindi nit bi parce que dëkkub lëmb nga taxaw ne leen juge ñaari juge yi jaar seen tur ne leen Cheikh Ndiaye Cheikh Tidiane Koulibaly ñaar ñii c'est des corrompus gars dañ leen corrompre tel tel nii la demee ñu génn kii di porte plainte kii daw ñu naan non nuñ ko xamee woon ku nekk di rafetal donc ñaar ñooñu kese la lan moo tax wax ko ñu Badio Camara lu tax wax ko ñu Badio Camara te ñaar ñooñu man maa leen ko fi wax te ñaar ñooñu ñoo mujjee seen tur yi ñoo mujjee génn te ñaar ñooñu moom lañ nekk di werante dëkk bi yëpp kenn ki porte plainte kenn ki ñu koy ñaar ñaan ku baax la woon nuñ ko xamee woon ne Cheikh Tidiane Coulibaly ku ko xam oh, oh, oh, wax ju bëri jooju ku leen génneel ñaar ñooñu lan moo tax waxuñu ñeneen ñi te ñu mat set kon man samay information du ma ci werante dama koy dem loqote au ci au sommet de la république indil leen jox leen gratuitement ngeen yóbbu xaaruma ci fukki dërëm xaaruma ci 15 ku ko weddi rek day ku ko weddi rek da nga da ngay puub sa <laughs> bu ëllëgee gaa yi dañuy dañ naa la moo laa am na dëgg ceedu ku weddi samay mbir rek day sa tubéy leer laa lay waxal parce que fa ma koy jëlee la léegi nag li may xamal moom mooy Sonko moom lank na Sonko bañ na Sonko lank na Sonko bañ na non Badio baajo kamara waxoon naa leen li mu wax baajo kamara bokk na ci ñu arrêté Sonko ba demut mais Badio Camara moom Macky Sall lijjanti woon na po kotem euh, bu yàgg Badio Camara moo indi Cheikh Tidiane Koulibaly Cheikh Tidiane Koulibaly bokkul woon ci conseil constitutionnel Badio Camara moo ko proposé Macky la ñu dem jëli ko ci ñu mujjee ñëw la bokk. Badio Camara même Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye bi ngay gis ni ci ñu mujjee ñëw la bokk ñooñu kon Badio Camara moom moo leen proposé Macky mais lekk ñu xaalis bi Badio Camara lekk Badio Camara moom depuis deux ans mi ngi lekk mu ngi 4-4 oto bu tooy xepp boo xam ni mooy nekk ci ginnaaw Macky Sall jox ko GIGN mu koy garder yor fetal muy wër di taxawaalo ko tambaambalo yor alal gu dul jeex moom kon Badio mbir mi defaru na lu ñu dox di corrompuwaat baajo Badio bu ñu koy ko depuis deux ans corrompu nañ ko Macky Sall wax naa moom bu dóor ko décret teg ko foofu noonu muy changé muy gis tóob yi muy wax tóob ci conseil constitutionnel la kee tóob la kee tóob la kee tóob la Macky Sall ñëw sànni noonu teg ay nitam moom moo indi Cheikh Ndiaye ne indil ma Cheikh Ndiaye indil ma Cheikh Tidiane Coulibaly ñoo ñëpp ci décret yu mujj yi lañ ñëwee conseil constitutionnel dama leen xooli document yi loolu kay mi ngi ci internet bi yàgg naa koo wax tamit donc kooku lekk na ba pare ba regg donc Badio nee naa leen bu ñu arrêté Sonko ba Sonko bokkul ñu rejeté candidature am waxoon naa leen li Badio mujjee wax parce que Badio bu mu demee fu mu toog dañ ko ne lu tax nga rejeté Ousmane Sonko daf ne leen mais Ousmane Sonko le cadre pour le cadre de Ousmane Sonko c'était pas à moi seul de décider lii la wax te waxoon naa ko sama live bala passé c'était pas à mois de décider man ak ñeneen la woon su pouvais pas décider pour pour euh, euh, euh, kii mais c'est moi qui a décidé pour ñu bàyyi ki nga xam ni moom mooy Diomaye Faye Badia Camara loolu la nee na nee pour le pour le pour le truc de Ousmane bu fekkee document dossier Ousmane Sonko loolu c' était pas je ne j' étais pour décider mais pour l' de Diomaye euh, oh, man je l'ai proposé on donc ñoom ñu accepté donc pour l' de mun a téye Ousmane Sonko mun a téye loolu noonu il a loolu noonu soxlawu Amadou Ba la Ba moom moom la. Amadou Ba mos ngeen gis Amadou Ba si benn manifestation bu mu xencoo lacrymogène <laughs> Amadou Ba moo bu doon président boo xam ne ci les chemins fleuris lay jaar Amadou Ba PS PDS sax groupe Sénégal gi yëpp Ndakaaru Njaay bi yëpp mu seddale ko lekk ci ay milliards ministre des affaires étrangères ministre des finances du budget ñi kii premier ministre ku jux ku jux ku jux naaw musul xeeñtu lacrymogène xamul sax lu lakk lacrymogène di xeeñ Amadou Ba toute sa vie musul xeeñtu lacrymogène <laughs> président bi musul xeeñtu lacrymogène président bi musul dem manifestation président musul taxaw ci manifestation di xeex du dara dara dara donc Amadou Ba moom moo bëgg a ñëw rek juddu rek am rek fekk fi ay milliards kenn musul dekk ci auto police musuñu ko jàpp dugal ci auto police musul xeex musul xeeñtu lacrymogène musul daw musul for xeer musul dundu dara dara dara dara moom comme comme fii sa papa te malheureusement à la dernier minute comme dañoo dóor pression Macky Sall ci la dawee donc comme dem na yéenewu ko Amadou Ba loolu moo tax moom nu mu mën a def moom mooy yéenewu ko Amadou Ba te xam na ni Amadou Ba mérité wu ko donc nan la mun a def pour reculer élection yi pousse Ousmane Sonko mu ñëw Ousmane Sonko bu ñëwee léegi donc Amadou Ba ça l'arrangé pour conseil constitutionnel mun a éliminer ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko nga xam ne lool Macky Sall moo ko santaane mais ça l'arrangé pour mu éliminer Karim Wade eh Karim Wade gars yi dañ ko négocier woon yéen déggu leen wax ji de Karim Wade dafa waroon dem dañ ko négocier Amadou Ba moo ko éliminer Karim Wade ci dialogue national yi dañoo accepté loon Karim Wade loolu yëpp dañ ci waxtaane woon de waxu waxuñu woon pour mu ñëw joxe milliards yi mu yore Sénégal déedéet dañ cee affaire bandi la woon dañ cee waxtaanoon protocole de Conakry lépp dañoo waxtaanoon ni dafa war a bokk ba mu gëm ni dafa war a bokk bay waajal donc ki nga xam ni mooy amado Ba moo éliminé moo jox far ba Ngom man kay je cite les noms <laughs> man Mollah Morgun moom tur lay def dama ne far ba Ngom yor na deux milliards de francs CFA cash def ko ci ay saak dem ba kër Cheikh Ndiaye le juge conseil constitutionnel jox ko un milliard de la part de Amadou Ba dem ba ci ki nga xam ne mooy këru Cheikh Tidiane Koulibaly le frère de Abdou Latif Koulibaly jox ko un milliard muy deux milliards loolu kay man maa ko wax <laughs> man maa ko wax tur ay tur laay wax te tur yi ba ma waxee moo tax Cheikh Ndiaye mujjee tourné di daw di per di porter plainte mais comme ñemewuñ ma te ci man la déggee wax ja déggeewu ko ci keneen Sénégal nee naa leen dix-huit million la kenn musul wax ni Cheikh Ndiaye ba tudd turam conséquence constitutionnel nangam corrompu man maa ko tudd lan moo tax ñemewu ma laal nag. moo tax muy daw moo tax muy choisir ñeneen man damaa doon xaar ma yeewu gis Cheikh Ndiaye plainte Mollah Morgun Mouhamadou ñas parce que man maa tudd turam man maa ne dafa jot ko feneen du ko wax du keneen moo ko wax keneen waxu ko man sama gémmiñ ngi la génnee maa affiché photom maa affiché turam lu muy daw na songu na songu wiir wiir jaari ndaara na songu man mi la Cheikh maa tudd sa tur maa affiché sa photo maa la génne partout te wax naa ki la ko jox nee naa Farba Ngom la ki ko jox Farba Ngom kan la Amadou Ba moo woo Farba Ngom Farba Ngom dama fa jox la un milliard léegi nag ñoom dañ la ko jox parce que loolu Amadou Ba loolu da ko arrangé woon <laughs> Macky Sall utiliser loolu yow da ngaa korop ñaari juge Macky Sall utiliser ko récupérer loolu dem jox ko waa PDS parce que moom wóoluwu la buggul nga dem te xam nañ dinañ la dóor ba toog sa kaw ba paan sa kaw moom reculer élection négocier ak Ousmane ko lay wër moo tax moom moo jël preuve yooyu dem jox ko waa PDS <laughs> affaire ba jaxasoo waa union des magistrats commencé génn def ay conférence ka non ñun si si ngeen di menacé ñun si non sa waay yéen bu bu leen dugg ci xeexu ñooñu nag fii lañ jàpp Ousmane ko toroxol ko ba mu ne tott Basirou Gueye toroxol Ousmane Sonko ba mu ne tott ki nga xam ne moom mooy euh, Abdou Karim Diop toroxal Ousmane Sonko ba mu ne topp Hamadi Diouf toroxal fi Ousmane Sonko ba mu ne tott ki nga xam ne moom mooy euh, Badio Camara toroxal fi Ousmane Sonko ba mu ne tott ki nga xam ni euh, moom moom mooy Omar Maham Diallo toroxal fi Ousmane Sonko ba mu ne tott ki nga xam ne mooy Mamadou sekk troxal fi Ousmane Sonko ba mu ne tott bu leen dugg ci waxu dëmm yooyu génn leen ci ba set wecc bu leen fi nekk nag da ngeen di défendre kenn ci ñaari dëmm yooyu nga xam ni ñu ñu ngi conseil constitutionnel daf fa yëfu dëmm ak Badio kamara na ngeen génn ci xeex seen xeex ñoom comme ñoom tey jii ñooy jéem a commencé di défier Macky Sall kon ñooñu ñoo liggéey ak Macky ba lii lépp am kon tey bu ñëwee ba dal seen kaw ngir yàlla bu leen leen yërëm bu leen leen yërëm ay bukki lañ yuy lekkante seen biir ñun nañ ne neen bu ñu deret laal Amadou Ba bu reyante ak Macky Sall bu ñu deret laal Macky Sall buy reyanteeg conseil constitutionnel bu ñu deret laal Macky Sall buy reyanteeg union des magistrats du Sénégal bu ñu deret laal. buy reyanteeg ay ñoom maa xam Diallo ay Hamadi Diouf di génn naan non boo leen toroxalee magistrature mooy toroxal ngeen nag suñu yoon naw ci bu ñu deret laal yàgg ngeen liggéey en cohabitation liggéey pour éliminer Ousmane Sonko la candidat ay dëmm ngeen ay nooxoon ngeen ay infiro laqat jaaxum ngeen kenn du leen défendre ay 100 pour cent corrompu ngeen. candidat yi ngeen éliminé corruption kese la boo leen jogoon ci def lu baax doo leen jàpp ay fichier jàmbur yi kele jàmbur yi di ko ubbi di ko loqati di ko changé di def nii di def kan moo leen ko sant <laughs> kan moo mun a wax ni doo leen ay corrompi kan moo leen mun a défendre yéen ma jox la sama kele nga dugg ci biir di dëpp di tibb kii di jox kii di yóbbul kii di def nii la kan loolu kenn du leen défendre ay nit yu bon ngeen ay corrompi ngeen Cheikh Ndiaye très grand corrompu bu ko kenn défendre nag bu ci kenn wut say intérêt ba naa da ngay jafan c'est un corrompu les sept singes du conseil constitutionnel sont tous des corrompus affaire yu salte la ñu liggéey liggéey nañ ba éliminer Ousmane Sonko liggéey nañ ba éliminer Karim Wade liggéey nañ ba éliminer yeneen candidat yoo xam ne defewuñ dara dugal kele kele bi ubbiwul nga ne éliminer nga ko loolu fu mu jël kele jàmbur yi di dëpp jomaay fay yàlla moo ko dimbale mais sinon dañ ko doon éliminer dëpp ay keleem kan moo leen ay dëmm lañ Cheikh Ndiaye la noo la wan moytu leen ko Cheikh Tidiane Coulibaly corrompu la c'est un nooxoor un dëmm de grand chemin kenn mënu leen defendre ñun duñ toog bokk ak yéen Sénégal ngeen ngeen jóg naa da ngeen di jéem xool ni ngeen di défendre ay dëmm inférieur laqat jaaxum ay ñoom ñëpp ay doome xaraam lañ les sept singes yëpp ay doome xaraam lañ ay corrompu cent pour cent lañ personne ne peut les défendre ñun lu ñu intéressé mooy suñuy élection dina am le vingt cinq février dinañ ko protéger te dinañ leen dóor ba toog seen kaw changer lépp jeex na seede yàlla wax ji boobu yëpp luy kettatati bi yàllaa ngi doog a yónne seedeem dama ne suñu yoon ci conseil constitutionnel def nañ lu ñu war a def c'est des imbéciles de grand chemin suñu yoon ci Amadou Ba ak Macky Sall bu ñu reyante négocier wuñ arrière wuñu reculer wuñu négocier wuñu ay élection arrière ñu ay élection négocier wuñu ay reculer élection élection le vingt cinq février ku mun sa morom dóor suñu yoon nekkul ci euh, Cheikh Ndiaye buy buy buy buy déposer plainte génn leen ci xeexu dëmm yooyu dama leen koy wax ne génn leen ci xeexu dëmm yooyu Cheikh Ndiaye musul ànd ak yéen musul leen defendre ay pelantam na noq fële ca xaj ay ay pelantam nu ñuusu ca xaj ak ay pelantam Cheikh Tidiane Koulibaly na noq ca xaj ak ay pelantam Badio Camara na ñuusu ca xaj Union des magistrats du Sénégal nañ noq ca xaj ay corrompu lañ bi Macky Sall di piétiner seeni seeni décision de justice ñoom ñëpp a ngi toogoon fii kenn yeyul yàb bi na ngeen génn ci histoire ñooñu na ngeen génn ci ñooñu béy du wàlli ci ay ay xeexu xeexu bukki béy du ca wàlli wolof wax na ko xeexu bukki béy du ca wàlli génn leen ci histoire ñooñu ay dëmm lañ ay corrompu lañ ay lekk katu nit lañ génn leen ci histoire ñooñu yéen doomu baadoole yéen ñi yoru lekku naanuñu amu leen doole boobu noonu génn leen ci histoire ñooñu bu leen partagé sax seeni i plainte na ñok ko ca xaj ak seeni i ñoom ñëpp ay corrompu lañ ñoom ñëpp ay dëmm lañ ay nooxóor lañ yéen sénégalais yërëm leen seen bopp booloo leen force bu leen dugg ci ñële ay lekk lekkatu nit lañ ñoom ñëpp boobu yem ay bandi lañ de grand jamais Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Coulibaly ak euh, Maham Diallo ak Hamadi Diouf ak euh, euh, Abdou Karim Diop ak ñoom ñëpp ay dëmm lañ baajo Camara ñoom ñu ay dëmm lañ bu leen gisee ngeen di partagé yéen dama naan yéen est ce que woon wàccu leen seen ànd des fois yéen da ngeen sensationnel ba nga xam ni xamu leen da ngeen di jaxase seen i xeex. da ngeen di jaawale seeni i xeex da di jël dëmm boo xam ni ñëw bu ko boole yéen parce que da ngeen calculer ni li muy def ni arrangé na leen dama ne dëmm la lu muy def bu la arrangé ba nga nangu ko bu paree ci yow lay ñëw li muy waajal bu la arrangé bu paree ci yow lay ñëw de dëmm dañ koy moytu nooxóor dañ koy moytu in firo laqat jaaxum dañ koy moytu di musulu ci moom même seytaane yàlla def ne musulu leen ci moom da nga naan auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim kon yàlla da nga muslu ci seytaane doo ko tàmbalee dem ci yàlla yàlla kenn du ñëw ci moom te doo muslu ci seytaane muslu leen ci seytaane yooyu ngeen génn ci li ma leen di wax na xam naa ko baax xam naa fu ko teg ñun benn combat ñu am moom mooy élection yii day am amul négociation amul recul suñu gat ci conseil constitutionnel suñu gàtt ci ci assemblée nationale boobu lan la ñuy négocier ak sa parlementaire tournumentaire suñu gàtt nekku ci le vingt cinq février ay élection day am Diomaye Faye et partant Ousmane Sonko won nañu mbër ma résumé na lépp jox nañu ko élection incha allah le cinq day am ci ci Sénégal ñu sécuriser vote yi door leen ba paan seen kaw door leen ba ñu gedd seen seen njuréel point loolu rek mooy suñu combat on s'en fout du reste bu leen kenn yërëm tëluloo ba ngeen di yërëm ñoo xam waru leen leen yërëm union des magistrats du Sénégal bi ñuy toroxal Ousmane Sonko mosu ñoo génn benn yoon lañ mu a génn te Ousmane Sonko lañ doon gaaruwaale union des national des magistrats du Sénégal bu ñuy toroxal depuis deux mille vingt et ba léegi benn yoon lañ mus a génn def conférence de presse di toroxal Ousmane Sonko di ko sosal di ko tiiñal di ko taqal donc tey bu ñu génnaatee parce que dañoo léegi ki doon defendre moo leen bugg a lekk kiñ doon défendre moo leen bugg a warax donc bu leen yërëmtalu ba daanu foofu boo leen fa duggee yàqule ci la ñu ñëwoon def seen conférence de presse di ko di gaaral ay Ousmane Sonko di ko sànni ay kàddu di di ko wàññeeka di ko wax ay wax ju ñaaw kon tey nañ ko yemale fële nañ noq fële di ñoo des magistrats Sénégal ak yooyu ñu ay corrompu lañ lay corrompu deux cent pour cent lañ donc ñun suñu yoon nekku ci focus focus sur l' essentiel essentiel bi mooy nañu am ful la am fayda Macky Sall munoo dawa dawa dawa dawa daw ba doo yegg si fii dama ne élection yi incha allah incha allah pour muy leer day am ña daw di kutti kutti Macky Sall démb rek mi ngi rom wëndaaloo ko taxawaalu ña ngay ña ngay <laughs> wëndaal dañoo tiit dem nañ bay waxtaanee ay ay wax ay waxtaanu euh, lu mu tuddati ak armée beeg yooyu pour def coup d'état loolu yëpp ñu ngi ci waxtaanu faux coup d'état loolu yëpp waxtaan nañ ci mais dañoo l'armée am na ñu ci bëri dañoo nanguwul ay Moussa Fall ak yooyu defoon nañ bay waxtaan waxu coup d'état ci Rome bii ci Macky Sall bu demee Rome. bërki dem bu demee Rome ñu def seen benn foo coup d'état nangam nangam ba Macky Sall des Rome na yooyu yëpp ñu ngi ko doon waxtaanee mais dañoo xam ne bu ñu fi doon naan dañu def faux faux coup d'état il faut ñu rey ay militaires. te militaire nanguñu loolu am na ay généraux yoo xam nanguñu accepté wuñu loolu am na ñu nekk ci biir ay colonels yoo xam nanguñu loolu nee na loolu mënu fi am. parce que bu fi naree am da ngeen di rey ay militaire il faut que ñu dóor fa ay affaire gars yi génn rey ay militaire te ñoom nanguñu ñu rey fi benn militaire donc coow loolu moo fi am entre Moussa Fall ak armée beeg yooyu loolu moo tax mais dañoo décidé woon def coup d'état démb bi nga xam ni Macky dem na Rome donc ñoom fu ne nii jaaxle la ñu def jàq jaaxle ñi ngi tante lu ne mais ñun tam ñi ngi leen di suivre ñi ngi tante lu ne ñi ngi jéem a def lu ne pour ay élection bañ fee am parce que élection yi déggoo ma leen dañu leen a dóor ba toog seen kaw dañ leen di dóor ba toog seen kaw ba paan seen kaw wallahi la azim dañoo tiit jàq-jaxle àndatuñu ña ngay seen biir waxuñu seen biir ñi ñi ngi ñi ngi yoole ñi ngay daw di jéem a négocier Ousmane Sonko lànk bañ ba tëdd ci suuf ne ay élection rek donc na ngeen waajal loolu ñun benn combat lañ am mooy le vingt cinq février deux mille vingt quatre y aura des élections transparentes démocratiques des des élections yow leer nañ ñu sécuriser ko ñun ñun les patriotes sénégalais ñun ñi bëgg Sénégal bëgg libération du peuple sénégalais dinañ taxaw suba ba guddi suba ba guddi suba ba guddi kuy ñëw na nga indaale sa sa miisu mburu boo def say nambe wala nga def ci lu ne indaale ndox incha allah xaalis bi dajale nañ ko dinañ bureau de vote yëpp dinañ fa yóbbu ay mbuusu ndox dinañ def bénévolat kuy dem indaaleel ay sachet ndox indaaleel ay sachet mbuusu ndox indaaleel ay bidon ndox jëlal miisu mburu def ci ndambe wala loo ci mun a def baax na thon beurre chocolat lépp ñu ñëw ak moom boo boo mi boo ñëwee voté boo paree ba pare dagg sa mburu toog ci ci suufu garab ga di xaar fees fa dal école yi fees dal ñu sécuriser fekk tell ñu sécuriser lépp loolu yëpp préparé préparé nañ ko nee nañ leen bu tollee ci wax fatt fépp bu ñu tollee nag ci wax leen ni ñu sécuriser vote bi loolu yëpp gars yi waxtaan nañ ci même Ousmane ko wax na ci. te nee naa leen vidéo yi dina ñëw mais dinañ ñun tamit waxtaan nañ ci réunion nañ ko bu baax dinañ ko sécuriser café Touba dina dàqante mburuma dina dàqante dina mel ni màggalu Touba dina neex dina fatt rek chandigieux lépp di ngeen lekk ba suur di ngeen naan ba màndi ñëw toog suba ba guddi dimanche la kenn liggéeyut kenn du toog këram tout le Sénégal dem voté ji sécurisé boo amul boo amee koo xam ne du voté sax àndal ak moom mu gunge la yanul koñ ba yëpp yanul waa koñ ba yëpp ñu dem kooku ñuy voté ñu voté wala xale yeeg fees dell donc amul fenn fu muy jaar amul ay bourrage ak ay transfert déggoo même transfert yi wax nañ ci dañ am ñoo xam ne ñoo yor seeni oto def ci essence boo ñëwee ñu transféré dañ am dinañ joxe benn numéro numéro boobu ngay woote boo ñëwee école mëndimb mëndimb ñu war a voté ñu ne la yow nekkoo euh, euh, dañ laa transféré waroo voté mëndimb ma Dakar ngay voté jee teg oto yi ñëw nga woote numéro vert bi gars yi daw ñëw jël la jëlee la école mëndimb yóbbu la oto école daqaar nga voté. parce que dañuy def yooyu dañuy def ci ay transfert d'électeur nga war a voté euh, école Mandimba ñu ñu jël la sànni la école ma Dakar léegi boo ñëwee école Mandimba teg yow da ngay woote numéro vert maa ngi nii école Mandimba waroon voté ñu ne dañ maa yóbbu école euh, euh, bu ñu xoolee nee nañ dañ maa yónnee yóbbu école ma Dakar donc gaa gaa yi daw yónnee oto ñu ñëw jël la école Mandimba yóbbu la école ma Dakar nga voté ñu delloo la foo bëgg nga nga taxaw école ma Dakar xool donc yooyu yëpp waajal nañ ko. donc journée bénévolat la doon dimanche boobu lu waay am def donc loolu incha allah dinañ ci taxaw te ñun ñun xam nañ xam nañ affaire vote yi du ñuy xale du ñuy xale yàgg nañ fi. donc xam nañ nan la ñuy sécuriser vote yi waaye pare nañ ko moo tax Macky Sall tiit jamono ji ñëwewul ay élection mi ngi kurti kurti di daw di ñëw ak di def ay groupe parlementaire ak kurti xol élection par la force doole mbam force le vingt cinq kenn mënul fexe bu seede yàlla ba duñ voté. tey yàlla ji moo yéeme de kenn mënul fexe ba ay du fi am dafi am par la force c'est fini élection kenn du ko fi reculer loolu kese ku leen waxul loolu bu leen taxaw ci live am ku leen waxul na ay élection kenn du ko fi reculer par la force y aura des élections libres et transparentes le 25 février 2024 ku la waxul loolu bu ko déglu te ngeen génn ci histoire jàmbur yi nag génn leen ci histoire jàmbur yi wax naa leen ko génn leen ci histoire jàmbur yi génn leen ci histoire jàmbur yi fu man génn man dama leen yërëm ma fekkee ay nit di pelentub eh, pelentub Cheikh Ndiaye buy recevoir ay milliards am lu ci seen yoon yow sa bàyyi day pene pour am sax mburu mum la jox nga ndékkee ko gis nga nag nit nit bëy bëy bu xamul eh, ay mor bu àndul ak ay moromam rek ànd ànd ànd ak cere ja yéen ku leen fekk ci histoire boobu lu mu ciy wax Cheikh Ndiaye xamul seen ndey xamul seen baay musu leen lijjanti éliminer seen candidat bu sañoon ngeen torox tortu Cheikh Ndiaye di ko fee ay milliards am yóbbu ko conseil mu toog di lekk ak naan ak dayee ko doxat rek bind pelentam lu ci sagat lu ci sagat yow yow Cheikh Ndiaye daa jox sa baay lu mu lekk Cheikh Ndiaye daa daa jàppale ci dara Cheikh Ndiaye lu lu ci sagat ci pelentam lu ci sa yoon ci pelentam pelentub seex Ndiaye yow ngay añee bañu dugub di di reere maafe bu eh, ñeex ma des ñeex ma manqué yaa nga yooyu kongu sa baay yorut lu mu lekk sa yaay di di di wanteer di jaay di jaay ay mburo mburo ñebbe mburo amul looy lijjëngee lijjënte nday pelentu Cheikh Cheikh bu yor ay milliards encaissé ay milliards am toog njabootam nekk ay Amérique di jàngee Canada man yéen ku leen juróom yërëm leen des fois bu ma leen gisee ci gis nga internet bi bu doon ay kër la ba ma génn internet ba fekk leen ci kër ba ñuus leen ñoq leen ba ngeen yem di ngeen génn ci histoire jàmbur yi man des fois damay am envie na internet bi dafa waroon doon jëmm rek ba mu dugg foofu ba fekk kii ñuus ko mu effacé lii mu din bi bu imbécile bi lu ci yoon ci parentub Cheikh Ndiaye ba ba muy partagé pare heureusement que ci internet bi laa yem kon dinaa fi noq ay nit noq yoo xam ne dañuy effacé partagé euh, euh, kii pelentub Cheikh Ndiaye lu sagat qu'est-ce qui t'a trempé dans le café espèce de morceau de pain morceau de pain day xam boppam fekk café gu tàng jër nga fay taxawaalu ñu ne la cap cap la ci euh, café nga yàqu quand tu es un morceau de pain da ngay moytu café gu tàng loolu waaj naan kii taa trempé dans le café espèce de de pain que tu es looy def ci café gu tàng ka ba ba ñoq la ci biir boo warax la donc concentration ci lu ñu nekk suñu yoon newul ci peletub Cheikh Ndiaye na noq ja xaj cinq février des élections présidentielles incha allah transparente libre démocratique sécuriser lépp taxaw jàmmaarloog dëmm yi nokku leen te dara du fi am duñ sàcc dara te midi ñu yóbbu soixante dix pour cent premier tour point loolu lañ leen sant kese luñ leen sant yomb na dañ ne jóg leen jëlee leen seen carte taxaw leen le vingt cinq février y aura des élections voté leen soixante quatre soixante dix huit à quatre vingt pour cent pour Diomaye Faye point coow la jeex na tàkk nga am jàmm ma am jàmm sa baay am jàmm sa yaay am jàmm te ngeen génn ci yëfu jàmbur yi ñun ñu ngi lijjanti mbirum mbirum Macky Sall mii di jéem xool nu muy arrière rek yooyu moom ñun ñu ngi koy lijjanti ñi ngi leen topp marquage à la boo leen gisee des fois may joxe ay information yu taxaw mooy pour wan ne leen ni ñun ñu ngi leen topp loolu kese la du lu ma leen jox pour yéen de noo dama ñoom laay xamal ne eh! parce que buñ déggee tey bu déggee Boubacar Yara ñoom ñoom du yéen laa waxal de Boubacar Yara dugg nga fële deux fois nanga dañuy tëb tiit taxaw eh! Euh, information bi jàll na non dégg nga ko ñu commencé non Mollah jàllal na ko Boubacar Yara dem na fa deux fois doo ko ko wax ci loolu la ñuy ne donc yenn information bu ma koy joxe sax du pour yéen ñoom laa koy moo tax ñooy jox tëll ñu dóor ñu xam ne ah kon gars yi ñi ñu topp ba léegi ñun nekk du ñun rek ci àll bi ndekete am nañu am ay ay ñuy naaw ñoo xam ne ñun gisuñu leen am na ñu gisul ñu ñu ñu topp ñu commencé ñoom seen biir di tiirante di reyante kii moo ko joxe kii moo ko joxe kay joxuwee ko donc ñun ñoom la ñuy waxal donc pour wan leen ni ngi leen di suivre ñi ngi leen di topp ñi ngi dégg réunion yi ñi ngi dégg waxtaan ya gis nañ lépp xam nañ lépp jëli leen seen carte merci beaucoup vraiment kii exemple bu baax la Mati Bintu Malick Sarr nee na moi j'ai retiré ma carte aujourd'hui macha allah macha allah kontaan naa ci yow yàlla la yàlla fay jëli leen seen carte mooy seen arme sama carte mooy sama arme sama carte mooy sama arme jëli leen seen carte seen arme téye ko daas fanaanal noq leen wulli yulli wulli tulli yulli seen maam yulli di yulli yulli seen poos ba mu jeex ña ngay ñëw nag ña ñëw ak milliards yu ñu sàcc gis ngeen ki nga xam ni mooy Aly Niambi njaay maa ngi ñëw ci moom nag da ngeen yàqam yàkkamti rek vidéo bi jox nañ ma ko bu yàgg mais mooy oto yooyu noonu xam nga oto yooyu ñaata lañ <laughs> sëñ ne des fois gars yi des fois am na ñu leen di jox ni ay kii mais doo leen sax duñ leen wax lépp gars yi oto yaa ngi di xoolal oto yaa ngi ni ma ko sax buñ ma ko joxee kenn xamul kañ la oto yaa ngi nii xoolal télé kii téléchargé wu ma ko sax xoolal oto yaa ngi nii xoolal ba ci bii sax moo téléchargé wu. am na ñoo xam ne géer ak ñoom. yii naan yii dafa am lu ñuy xaar. des fois yéen da ngeen di gars yi dañuy jël dañ leen di jox rek ñu dem di yóbbu ndeysaan lu nekk dafa am information moo tax ay information des fois même gars yi ñëw di non moo laa nangam daan la ndànk parce que man information boo la ko yónnee ci ay ay nit yoo xam ne xamuñu lan mooy lii ak fu lii jóge yooyu de ndànk rek oto yi ngeen gis dafa am lu ko waral oto Aly Ngouille Ndiaye yii ñaata la <laughs> <laughs> d' accord yooyu dinañ ñëw ci Aly Ngouille Ndiaye dinañ ñëw ci Aly Ngouille Ndiaye ndànk rek di wax ne euh, kii nga xam ni moom mooy Bougane Gueye Dany yéen da ngeen ne ngeen politique daal yëfu salte kese la quoi yëfu salte rek ngeen di def yéen nangu leen baax daal ah. <laughs> d'accord Bougane Gueye Dany lan la fi waxoon ne woon na ci wal fajiri bu candidat Jomaay Fay deme mu ñëw jàppale ko loolu moo ko waxoon no Bougane Gueye Dany du samay wax de moo ko waxoon ca wal fajri moo ne woon dina ànd ak candidat bi usmaan Sonko muy Jomaay Fay mais ba léegi waxutu ci de di ko wax ni li liggéey guddi gi gis nañ lépp nag <laughs> li ngay liggéey guddi gi gis nañ lépp voilà ñu ngi gis lépp nag moo ko waxoon de lan moo tax Bougane Gueye Dany ba léegi waxatul ba léegi deful benn discours waxul benn yoon sympathème jëmale ko ci Diomaye fay te loolu moo ko waxoon wal fajiri laajte leen loolu moom nee na lépp rek koy dil nag <laughs> guddi gi bu soloo nag ba génn nag di tëñëx tëñëx foog ni moo téegal gaynde gi <laughs> d'accord euh, gis naa la yow Aly Ngouille Ndiaye Mhm. gis nañ leen yow ak Aly Ngouille Ndiaye ci ci guddi gi yëpp yéen a ngi yenee nekk yow yow nee nga Aly Ngouille Ndiaye ngay jàppale ji nañ <laughs> ñu ngi lay xaar <laughs> Bougane Gueye Dany seetlu wu leen de telem du fa wax Sonko du fa wax Jomaay Fay même li nga xam ni moom mooy euh, journaux yi le matin bu ñuy ñëw di def résumé journaux yi les faits de l'actualité day tëb sax waxi Jomaay Bougane Gueye Dany Bougane ñi ngi la gis ngay ànd ak ki nga xam ni moom mooy euh, euh, Aly Ngouille Ndiaye maa ngi lay interpeller rek ñi ngi lay xaar tamit nga yëy yàbbi ci Pastef bi nga xam ne yaa ko waxoon ne euh, da nga jàppale le candidat de Pastef ñi ngi la ciy déglu Mimi Touré yéy na yàbbi ci ñu marito ñaan yéy na yàbbi ci ñu ci bëri yéy nañ yàbbi ci ay ñi ngi la gis daal jamono jii duñ la soreel yow ak Aly Ngouille Ndiaye waaw donc nee na samedi dina ci prononcé d'accord kon nañ ko nañ ko teel a araftu xamal ko ni daal euh, heureusement gars yi nee nañ ma gisante nga ak waa Pastef tey di nga ciy wax samedi waa en attendant daal ma yëgal sénégalais yi ni gis nañ la yow ak Aly Ngouille Ndiaye waaw yaa ngi ci dem bu metti sax yow ak Aly Ngouille Ndiaye yaa ngi ci dem suba ngoon yaa ngi ci yendu ci Aly Ngouille Ndiaye di dem di ñëw te sa télé bi gis nañ ni day tëb ay waxi Pastef di tëb waxi Jomaay nangutu ci wax nangutu ci yee yàbbi du ko partagé voilà donc euh, ñu xaar ko noonu rek waaw ñu xaar ko donc ñu ngi leen di interpeller ci loolu moom tamit dina dégg voilà maa ngay jaabante nag ci diggante moom Aly Ngouille Ndiaye waxaguñ dara lu dëgër voilà te moom dafa waxoon direct ne bés bu candidat wu Pastef kii dina dem jàppale ji ko <laughs> donc nee na ci wax samedi acca kon lii baax na lii baax na lii ñu def nii kon baax na macha allah kon lii ñu def baax na kon léegi nañ déglu xanaa boo leen dégg boo ko déggee foofu rek <laughs> màbb leen ci kawam te xam ni alerté woon naa leen foofu ca côté boobu voilà donc Aly Ngouille Ndiaye moom dinaa njëkk dinaa ñëw ci moom opération rëbb dama wax na lépp cinq cent voitures yi xam ngeen ñaata la cinq cent cinq cent mu ne collectivité locale yëpp xam nga cinq cent lañ nee na bu ci nekk dina ci yóbbu benn oto <laughs> Ali mooy bandi Ali Ali cinq cent xam nga fan la ko def oto yi xam ngeen fan la ne mi ngi Cices dem leen Cices oto Ali Nguy Njaay yi mi ngi sises mu gaare <laughs> ma nga si ses de mu gaare cinq cent cinq cent def ci ay photo def ci yëpp Aly Ngouille Ndiaye cinq cent voilà ah man man man yëguma yooyu nee na il a même remercié Ali dans la conférence des recalés ah bon <laughs> informateur yi dañuy waxantu chet ak ñooy jinne man moo ay jinne informateur laa yor ak ñooy jinne dañuy yow suba ba ngoon di wëri ay information ci maa ngi leen di sant di leen gërëm vraiment du ñuy nit ña nga fu ne <laughs> dañoo tasaaroo ci dëkk bi ñii ngi toog ak ñoom ci bureau yi ñii toog ak ñoom ci réunion yi ñi toog ak ñoom fu ne di waxtaan ñi jël seen téléphone ku ci pare rek woote waa lii ak lii non bu ñuy expliquer da ngay kontaan sax waaw mola waaw waa ji woo na ko woo na ko waaw woo woo na farba farba war a ñëw léegi-léegi ba bu mu ñëwee waa dugg si na yegg si na Hmm, jox na ko un milliard ma ngi koy yóbbu Cheikh Ndiaye ku ku Cheikh Ndiaye xam na xaw ma leen ku Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye xam nga Cheikh Ndiaye non non juge conseil constitutionnel la jox na ko un milliard de ma ngay dem de hmm, waaw xam naa ay quatre heures du matin dina fa dugg non mais gars yi du ñu nelaw ñu jaray remercier lañ nag vraiment ay jàmbaar dëgg ñu ngi toog ak ñoom xam lépp di lépp di bind di joxe di teg <laughs> ndeysaan ay fàq tëdd lañ nañ ma euh, mola bërki dem waaw bugaa na ngay taxawaalu kër aali de temps yi bëri na fa tànk de ah waaw kay ma ngi bëri na fa tànk mi ngi dem ak dikk alerte ko alerte ko rek moom dina xam li nga koy wax nee ko rek na wàññi tànkam ya nee ko mu wàññi tànkam ja ca ca yoonu aali nguy ga waaw aali nguy na fa wàññi tànkam ñoom sax ñoo ma ko wax de man ne ma Mollah xanaa yëgoon ni xam nga du ma seetaan télé Sénégal yi te pourtant Bougane waxoon na ci télé yi ne day jàppale day jàppale kii de day jàppale Bougane de mais ba léegi lu tax yéeyul yàbbi ma ngay doxoon ma ngay dox partage partage di gâteau donc oto yi nag mi ngi sises cinq cent voitures la yu aali nguy jël yor téye voilà gis ngeen ko sax ci internet partagé nañ ko man yónnee nañ ma ko depuis sama gars yónnee nañ ma ko depuis cinq jours de cela mais dafa ànd ak ay information dafa foog nga xam nombre oto yi foog nga xam fu oto yu jógee loolu lépp am na fan la xaal aali jëlee xaalis boobu yan oto la jël nii loolu lépp ko donc booy joxe information il faut loolu ànd ci doo génne rek xool leen découvrir les voitures de Aly Ngouille Ndiaye gars yi ñëw xool doo euh, Aly yo da ngay xam lan la da ngay xam oto bi ñaata oto la fu mu jëlee oto yi ban xaalis la détourné lan lañ ko jox mu jël dóor tout la dañ koy expliqué parce que affaire ay information la information dafay lii preuve la kese oto yi preuve kese la léegi nag da ngay indi information bu mu àndal moo information il faut ngeen di ko mun di liggéey waaye mi ngi noonu donc ñun ñi ngi ci kaw Ali Ali moom moom sonn ñu moom Ali Ngoy Njaay moom Ali Bandi ak këram ga mu defar huit étage ba ca kaw di colli colli <laughs> mu ñëw puus jaay ko ku mu ko jaay yëpp dinañ ci ñëw de toute façon rëbb dëmb bi lépp dana leer donc gars ñun nañ concentré wu focus ci les élections du 25 février 2024 ñëpp jëli seen carte ñu yulli leen yulli seen poste yi ci vendredi la élection yi di tàmbale ma vendredi la campagne bi donc vendredi wulli la yulli leen ba ñu jeex tàkk ay milliards la ñu sàcc indi ni ngeen leen yulli ba seen poche yi du des dara dara dara lekk leen lépp yéen ko moom yulli leen ba campagne ba jeex tàkk yuuxoo leen nag ku xoolee leen gisee yuuxoo leen libéré Sonko libéré nit na na na dal na mën a la boobu noonu sax Sonko na mën a la dafa gudd Sonko na mën a la ah yee déet loolu dafa Sonko libéré Sonko libéré yuuxu cortège bi boo gis bu dul bu Sonko na ngeen ko yuuxu ñëpp ñu ngi woo ñëpp góor jigéen mag ndaw foo leen gis cortège génn leen yulli leen ba seen poos yi jeex yuuxoo leen leen libéré sonko libéré sonko libéré ba mu na ngeen leen sonkoriser ba ñu saf sap mooy yulli ba duñ dese dara lekk leen luñ leen jox lekk leen lekk leen ay nit ngeen doole ni mala lekk leen ba mu jeex tàkk kenn amu ci nit balaa maa dee nag dañuy toog naan dañuy jéem a négocier parce que ay nit yu ñu am mel ni ay xar nan ngay jëlee ay nit yu la gëm nga ne da nga leen di dem di négocier fële comme ay xar comme ku yor ay xar di leen marchander donc libéré Sonko gi na saf sap sap sap paaral ci élection yi yuuxu yu metti ñu tasaare ko ci internet bi Facebook beeg Snap beeg TikTok beeg mu saf sap libéré Sonko gi wuuwoo wuuwoo Sonko Sonko libéré ñëpp ñi bu naan libere ñooy yuuxu Sonko cortège yi saf sap ñu leen di yuuxoo yuuxoo yu méttee métti métti bu ñuy meeting ñu yuuxoo leen libéré Sonko libéré Sonko libéré taxaw dëkkub lëmb mënuñu arrêté ñëpp donc te te campagne la kenn du leen jàpp nañ leen sonkorisé ba mu saf ba ba ñu bàyyi ba ñu bàyyi te élection yi ñëwagul libéré Sonko bi nangeen ko waajal na ngeen commencé tàngal euh, ŋaam yi libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré mun nga ko wax cent fois wala bu ne libéré ñeene Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré bu ñuy romb ak cortège yeeg réunion yeeg lépp lu ñuy def campagne yi lépp dagan na kenn mënu leen kenn du leen téye kenn du la arrêté donc na saf sap sap sap na réew mi yépp di yëngu ci libéré Sonko ci seen cortège yi nañ leen tongal yi comme ay dëmm yuuxu leen ba du ñu tekki dara ba dañuy rus du ñu ñimee génn fu ñu dem te dañuy après dañuy def concours ban région moo gagné ak ban quartier moo gagné day am concours libéré Sonko ci campagne yi ban quartier moo gagné wala ban région ñu sargal leen suturaal région boobu ndamoo leen tiitaroo leen région bu gagné ci yuuxu dëmm yi bu ñu ñëwee yuuxu yi ngi leen di yuuxu dañuy teg ne région bii moo dóor Amadou Diol Daba ñëw na Kaolack nañ ko yuuxoo libere Sonko musul am ci dund ñu ne Kaolack moom mooy la région d'honneur bës bu Sonko jëlee réew mi balaa laal benn région dina laal Kaolack boobu da ci bokk parce que ci la bokk par région bi xeex souveraineté dañ koy moom la ñuy jiital bu fekkee ni Ziguinchor moo gañe balaa ñoo defar benn dëkk Ziguinchor moo war a njëkk a defaru parce que ñoom ñoo njëkk xeex seen souveraineté nationale ñoo taxaw ab nit ñëw fa ñu yuuxu ko yuuxu ko ba mënul wax yuuxu ko yuuxu ko ba meeting ba tas yuuxu ko yuuxu ko donc région bu def loolu région boobu day am gradu ba lépp lu ñuy def moo ci waree jiitu moo ko mérité parce que moo xeex souveraineté nationale am moo xeex libération am devant ay dëmm ak ay nuuxóor il a pu donc loolu dinañ ko def incha allah ban région moo gën a gagné ci sensibilisation ci yuuxu libéré Sonko si dëmm yi nga xam ne dañu nar a campagne aka taxawaaloo ko wëndaaloo ko fen aka kàcc duñu leen may le temps di wax di yëy di ubbi seen gémmiñ naan dañuy yàbbi wala dañuy wax dara duñu leen ko may libéré Sonko gi na jolli na saf sàpp waajal leen ko commencé leen ko entraîner corde vocale yi libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré kese lañ leen sant ñaari moo la libéré Sonko Sonko namoon naa la dafa gudd dafa gudd dafa desee am fulla aye ay way la yaawo sonko na ma naa la non jeex na yow jeex na amoon na fi temps na libéré nu ful ak fay doon ay ay aye dafa gudd loolu ku xool dañ naan kii sax ñi meruñu dañ naan ñi amuñu naqar dañ amuñu naqar parce que ku leen fekkee aye yaaw di wut lu lu sedd xol wala daw yaram dawul yaram dañu nekk ci guerre libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré bépp cortège bu dul cortège u Diomaye Faye Pastef yuuxoo leen ko ba mu torox tot toroxal leen ko ba mu torox tottu ak ay libéré Sonko yu am fulla yu am fayda yu dëgër këkk yuy riir ci dëndu góor yi jigéen ak góor mag ak ndaw ñëpp na ngeen ko waajal incha allah dañ ci gën a def ay campagne nag ci nan lañ leen di recevoir ci région yi nañ leen leen fas yéene toroxalee bañ torox tont yuuxoo leen ba ñuy waaj a deye yuuxoo leen ba ñu gedd sax campagne bi parce que kenn dootul amatu fit génn naan da ngay fen sénégalais yi wala da ngay jàkkaarloog ñoom naan da ngay yéedi yàbbi lépp waajal nañ ko bind nañ lépp sama gars yi bind nañ lépp lii du caaxaande kamikaze dañuy kamikaze dañ koy gagné par la force dañu war a donc bakkan lañ ci teg ñun xaw ma kan waaye ñun bakkan lañ ci teg bakkan lañ ci teg de dañuy ñibbi si de février incha allah avril dama ne dama ne kenn du ma tere défilé le 4 avril incha allah sama souveraineté nationale dama koy jot le 4 avril deux mille 2024 le 4 avril 4 4 2024 laa du ma ko ñàkk 4 4 2024 ma ñëw nag toog taxaw taxaw kenn du ma tere kenn du ma téye 4 4 2024 ku ko ñàkk torox nga. peuple bu raté 4 4 2024 4 4 24 bi trox nga incha allah 4 4 24 4 4 24 gars yi 4 4 24 point donc da ngeen ko waajal fulla ak fayda dinañ leen dóor ba paan seen kaw barke alxuraan dinañ leen dóor bu dootuñ ko dooleeti 4 4 24 rek 4 4 24 incha allah donc cinq février muy 7 5 cinq ak 2 7 la allah akbar voilà vingt cinq bi muy set bi rek set bi génn foofu noonu jomaay basiiru basiiran basiiru incha allah na ngeen ko waajal incha allah ñëpp lañu ñu sonkorisé xalifa sàll ak yëpp képp ku dul képp ñëwul ci campagne ànd ak jomaay fay nañ la sonkorisé képp na képp incha allah di leen tongali comme ay dëmm ci biir ville di leen leen tongali ne kaña xam ngeen kaña gis ngeen kaña nu ñu koy tongalee kaña jàppale rey leen tut tut xer yi di naaw toj leen bopp yi comme kaña ay bàyyi rek kaña lañ yor nañ leen yuuxoo bañ torop tot ñëpp nag amuñu ci xaj ak seen képp ku àndul ak coalition Jomaay Fay bi dinañ la toroxal ñun ñoo la ko wax loo gis ñun la loo dégg ñun la boo ci gisee ay xeer yu tëmb nag boo mais ñun wootewuñ ci loolu yuuxoo sonkorisation waaw voilà manifestation ñu dañuy manifester suñu colère ci li am ci sonk bi ñuy campagne ñu jëpp jàpp ko ci kaso bi te incha allah ñu yulli leen seen poos yi wulli leen ci bureau de vote yi ba ñu nooy wulli leen ba ñu nooy dóor leen dóor yoo xam ne musul am ci kaw suuf tulli seen maam incha allah maa ngi ñëw nag ci comme nu ma leen ko waxee bàyyiwuma de rëbb dëmm bi xam naa dama koy def léegi vendredi samedi dimanche vendredi rëbb dëmm samedi benn rëbb dëmm dimanche benn rëbb dëmm voilà vendredi rëbb dëmm samedi rëbb dëmm dimanche rëbb dëmm incha allah à partir de ce vendredi moom dina am rëbb dëmm samedi dina am rëbb dëmm dimanche dina am rëbb dëmm ma tagale ko parce que gars yi foog foog ñu teg tegale leen nii na yàq bu naqari jàll ci leneen donc voilà dinañ ñëw ci vendredi VSD la vendredi vingt heures rëbb dëmm samedi vingt heures rëbb dëmm dimanche vingt heures rëbb dëmm voilà tambour battant incha allah te na ngeen ko waajal parce que élection yi day am te dinañ ko amal par force te dinañ leen dóor duma daan leen toog seen kaw incha allah kon nag gars yi maa leen di sant di leen gërëm waaw di leen remercier di leen wax ni rek euh, lépp lu fi am dina leen ko jox information yi mi ngi ñëw dina leen ko jox ratewuñ daara am na yoo xam ni yàkkamtiwuñ ko dañ koo yor ak yeneen luñ leen di waajalal mais jàpp leen daal gars yi am na benn coup d'état raté bu bu naroon am ci bu ñu programmé Macky Sall dem Rome ñu bugg fa dóor benn coup d'état armée ba am ñu lànk ba tëdd ci suuf ne mukk am kenn du ko fi def Moussa Fall nag lañ ko bëggoon def loo ak ñeneen pour ñu rey yenn militaire def yëngu-yëngu euh, euh, quadriller dëkk bi euh, def couvre-feu ne dañoo dañoo def benn li nga xam ni moom mooy coup d'état armée bi nag ñu ci bëri colonel yoo xam dañoo lànk ne mukk duñ nangu ay faux Euh, coup d'état boo xam ne dañuy rey ay militaires donc ils ont refusé catégoriquement loolu moo tax mujjuñu ko def loolu dañ ko fas yéene woon def lundi lañ fas yéene woon def seen foo coup d'état boobu seen coup d'état monté parce que lépp rek pour arrière élection pour reculer ay élection dañoo jombi dañoo jaaxle xamuñu fu ñu jëm dañoo tiit te xam ne ñàkk nañ te ñàkk nañ te kenn munul tere fu mu ne nii gisatoo APR gis nga nuñ tasaaroo gisatoo benn bokk yaaga yëpp yàqu na lépp yàqu na lépp loolu nag yàlla moo ci ànd kon di leen sant di leen gërëm di leen wax ni focus sur euh, l'essentiel bu leen perte seen temps ci ñàkk fayda wala ñoo ngeen di xeexal ngeen di xeexal ñoo xam ne matuñu xeexal bu leen fàtte seen noonu démb yi bu leen fàtte seen noonu démb yi bu leen fàtte bukk yi sàngoo deru bëy yi waaw yooyu yëpp gis nañ lépp nag gis nañ lépp ñu ngi toog di xool te bu jotee dinañ ci wax incha allah donc focus sur l'essentiel focus sur Diomaye fay le candidat de la euh, libération du peuple sénégalais le candidat de la souveraineté nationale le candidat pour euh, une libération immédiate et sans condition waaye le candidat du changement radical macha allah avec Diomaye toujours avec Diomaye encore avec Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye rupture totale voilà kon ñu ngi leen sant di leen gërëm donc bu amaatee leneen li ci am rek dinañ indi waxaat leen dinañ indi waxaat leen mais pour l'instant comme ni ñu ko waxee focus sur l'essentiel sur le plus important jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay yàlla moo ko defee nii football ba jeex na concentré waat leen parce que football bi moom euh, neex na loolu amay victoire tëb di dal mais day rees <laughs> waaye bii moom moo garaaw match bu tàng ngi nii boole ñàkkee torox ngeen ba faw waaye boo leen gañee gañe ngeen ba faw bokkul ak ay ay kii de Coupe d'Afrique day am fii ay ay deux ans <laughs> mais ay élection cinq ans ba cinq ans cinq ans ba cinq ans dafa yàgg de dafa yàgg de cinq ans de galère de misère de ñàkk loo lekk de ñàkk loo naan de ñàkk faju de ñàkk jàng lu baax loolu du moroomu football donc football ba jeex na yàlla moo ko defee noonu def ko teel arrêté fu ne concentré wu leen ci mooy seen dund lii mooy seen dee lii mooy seen avenir lii ngeen nekk lii lii lii mooy seen lépp hmm, ko defee noonu te loolooy dëgg nag te loolooy dëgg ni ko yàlla defee nii noonu la noonu lañ koy nangoo kon football ba jeex na zappé gaa yaa ngi ñibbisi noonu suba ngeen gis leen dugg nañ ci avion ya nii nii nii na départ nañ ña noonu suba da leen gis ñu toog après seen club yi la ñuy dem football yi fàtte nañ sax kon yéen mun leen bu leen bu leen fi jooy bu subaa ginnaaw suba jeex na li am am na lu woon woon ne nag demuñu qualifié wuñu bu leen ñu sonnal ak ay arbitre bee la kii bi la kii bi la fii la xar bi jeex na jeex na jeex na jàll ci leneen jàll ci leneen kese boo ñàkkee ñàkk nga gëmal yàlla bul ñàkk ñànki jeex na point ma noonu nañ jàll ci lenn munoo wax a wax a wax ba ñu indiwaat ko munoo wax a wax ba Sénégal munoo wax a wax a wax donc nañ ko continuer nañ nangu ndogal et continuer nag ci combat bi nga xam ne du dakk du jeex du jeex du xaaj ci ngay libéré ba faw wala nga torox ba faw wala nga doon jaam ba faw <laughs> waaw combat pour la libération du peuple sénégalais tous avec Diomaye Faye et le combat continue peace and I'm out